voilà mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp euh, ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm Sénégal ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm surtout ñu ñuy seetaan bitim réew diaspora bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm parce que toujours dañuy jot seen i message encore alhamdulilahi rabil alamin ci li ñu génn muy élection yi ñu ngi sant bépp sénégalais muy opposition ak i tamit euh, parti au pouvoir parce que mbir wi jàll na ci jàmm maturité feeñ na tey ñu ngi ak euh, kenn koo xam ni tamit mi ngi ci réew mi di investir ci réew mi un jeune nekk porteur de voix moom it ñu ñëw seet si ko mu nekk euh, ci benn côté boo xamante nii ak beneen i wet sax entrepreneur la Fallou Ndiaye euh, Ndiaye production ñu bàyyi la nga nuyoog askan bi ñuy seetaan Sénégal ak bitim réew bi Pape Maguette maa ngi lay fay bu baax mm. di am mbégte ci dalal bi ñu dalal mm. di nuyu sénégalais yëpp mm. ak sénégalaises yi di nuyu surtout diaspora bi ndax diaspora bi moom actuellement dañu fa bari ay partenaires yoo xam ne suñu ay xarit lañ hmm. technique bi ci loxo ñoom Toldo hmm. ñoom Sey Ndiour hmm. ñoom Toumane gaa yëpp di am mbégte bu baax ci dalal bi comme ni ñu ko waxee léegi di am mbégte tamit ci sénégalais yi ndax vraiment gis nañ seen taxawaay ci réew mi am nañ satisfaction ci ñoom bu baax am nañ satisfaction boo waxee bitim réew man kenn tey laay laay nuyu foofu di ko bàyyi xel bu baax a baax toujours dama koy wax muy euh, Jaguar Mamadou Ndoye ñu ngi koy ñaanal jàmm fa mu ne kooku c'est un ñaa maa ngi koy dégg mu nekk ci ay jafe-jafe Mohamed Gueye xaritam bi nga xamante ni chaque fois mi ngi nekk ci ay mbiram di ko taxawu am nañ ci yaakaar am na lu ñu dégg fan yi incha allahu rabi pour le mois de février yàlla na ko borom bi taxaw bu baax a baax ak sénégalais yi nekk foofu yëpp yàlla na leen borom bi taxaw ñeneen ñi nag maa ngi dégganteeg yéen yéen ñëpp su ma liimee rek damay juum mhm. voilà léegi nag euh, ñu jum ci wàllu làmb lan moo tax fàllu Ndiaye toog benn temps dégguñu ko. Fallou Ndiaye ne nemm ak Fallou ni ñu ko xamee mu actif ci côté lamb ji di tëgg ay combat yu am solo. loolu laay bëgg a njëkk laaj ba pare. waaw Pape Maguette xam nga benn lamb du yëngu. Hmm. te lamb dafa am fu muy toll. Hmm. il fallait que nga pause ci côté communication. ndax Pape Maguette ñu ñooy seul promoteur. Hmm. bi nga xam ne chaque année. minimum nañ def cinq wala sept événements yoo xamante ni ay journée yu am solo lay nekk. journée yoo xam ne amateur yi ciy gis seen bopp. ak lu làmb yëpp gis seen bopp. seul promoteur. à part ça yeneen promoteurs yi fi nekk yëpp deux journées trois journées la ñuy def minimum ku ci dem ba dem quatre journées ngay def. mais ñun ñooy jeunes yu seul promoteur am nañu minimum nañ def cinq six sept ba huit. surtout ay ndaw yu am doole surtout ay ndaw boo xoolee tey Covid bii ñëw ñëw bi ñu biwaatee làmb ji. Mm. diggante bi rek pour les 100 Pape Maguette organisé gu nañ fi 4 journées. 4 journées. man ne loolu bàyyiwuma ci xel sax. waaw organisé gu nañ fi 4 jours man benn journée rek nga fi def. non def nañ fi parce que dama daan gis nga actif trop. def mm. mm. bi passé lañ def suñu dernière journée le 9 janvier. mais comme élection yi la moo tax. Mm. bàyyi leen ci woon xel ak yooyu. mais le 9 janvier bi rek def nañ fi suñu benn journée. Euh, boo xoolee tey ñu ngi ñëwaat le 20 février ak le 27 février. muy ñaari journée 27 février moo tax noppi gi nga noppi woon noonu yëpp di liggéey yaa ngi doon waaj ñaari journée ci benn weer lu lu waral lool ñaari journée benn weer. waa li waral lool mooy euh, fi bu toll la hmm. dañoo gis ne promoteurs yi dañuy ñu bàyyi nañu ci ñuy reculer hmm. ñëwatuñu. Hmm. Euh, bàyyi na ci ñoo xam ni tamit euh, niñ ma niñ niñ ñun niñ ma tëggee ñoom peut-être mënuñu ñoo tëggee il faut ñu def seen ay journée mu yam ay 3 mois 4 mois décalage bi te ñun lu ñu war mooy comme dañu ñoo boole ci jeunes yi ñu war a promouvoir jeunes yi. Hmm. dañoo war sax weer ñu def benn événement. waaw qualité nag. Hmm. ndax tey bëgg a dëgg làmb rek tax ñuy tëgg làmb muy yoo xam ne nii ndax tey boo xoolee làmb tey fi muy doxee. Hmm. ñun suñu premier combat suñu deuxième combat moom la ñuy def grand combat. moom la yeneen promoteurs yi def grand combat. ñun pour mbëri ñu tëgg premier combat deuxième troisième. moom la ñuy def grand combat. kon tey mu mu wane la ñu ngi ci beneen phase bu bokkul ak fañ nekkoon année yi passé mm, mm. suñu bët tamit fi ñu ko teg. Mm. mooy ci kaw. moo tax amatuñu yenn jot yi. tontonte yi amatuñu jot gi. amatuñu jot yu yenn waxu léegi liggéey la quoi voilà léegi liggéey bi lañ gën a jiital Pape Maguette ni ko wax ji. léegi léegi vingt vingt journée le vingt boobu noonu. Mhm. ban combat nga jëkk taxawal. ba le vingt incha allah ñu ngeen di Mor Kankang. ak ki nga xam ne mooy Dab Daan. mooy Dab Daan Dab Daan men borom bi voilà ñu ngi di xam ne mooy Mor Kankan ak Dab loolu ñu jëmal ko Stade Iba Mar ndax Stade Iba Mar Diop dañoo dem ba CNG woo ñu ne ñu dootu leen fa dëgg làmb mais contexte bi ni mu demee a dëgg làmb ndax xam nañ ne ñun suñu journée xajul Stade Iba Mar Diop mm. mais comme la ñu indi ak Dab Daan ñu ne nañ mm. dem arène nationale comme ñun koy def. Mm. ndax gis nañ événement yi ñuy tëgg xajatul Iba Mar Diop. arène nationale la xaj. ñu ne nag le 27 bu ñu jógee le 20 février dañuy ñëw le 27 février. Hmm. le 27 février nag ñoo di vraiment journée moom ne nii journée bu am solo la nag. Pape hmm. hmm. euh, ko suñu jigéen. suñu xarit. Euh, di ci sargal ay xale yoo xam te ni tamit yu am lañ mooy xale xew-xew làmb yi. di ay xale yoo xam te ni yu am solo la. ñun ñu ne fa. ñu mën cee boole ñu mën cee tudd ko mel ni am na Moussa Wade bopp Ndiaye production. man cee tudd ñu bari. Hmm. comme groupe mbooloo la. waay bëgg ñuy tuddu ñu ne ni dañuy tudd ñuy bàyyi. ñu muy ay jeunes la ñoo xam te ni. Hmm. ñoom euh, bis bi nag ñu jagleel ko bisu ngoone bi nga xam ne moo nekk 2STV. bii sama xarit. waaw eh, sama ñaareel bés. bi ma muy jigéen joo xam te ni jàmbaar la. <laughs> non kooku dama ciy taxaw. di jigéen ju man góor. waaw borom confrontation. borom confrontation. vraiment bis bu am solo. Hmm. ñu jël ki nga xamante ne day mooy Ada Fass boole ko Jokkel jël nga xam ne mooy caatu yaraax. boole koog dab daan. Hmm. boole koog euh, Bulldozer. Hmm. ñaari grand combat muy ñaari grand combat yu am solo. waaw dèjà fi ma toll sax ñu ngi naan kan mooy bëri grand combat bi entre Thiatou Yarakh Bulldozer entre entre Thiatou Yarakh <laughs> Ada Fass Diockel mais loolu li lay won de bu ñu nee ba nit ñuy dute ci ne kan mooy bëri grand ñeenti mbër yi seen dayo moo toll noonu. affiche mag la ñeenti mbër yi seen parcours ci làmb moo toll noonu. Mm, mm, mm. te yaakaar naa bu ñu xoolee seen parcours Jokal rek moo leen di xaw a mag tuuti. mais ñeenti yëpp presque ñoo duggandoo ci làmb. mais tëgg combat bu garaaw Jokal ak Ada Fass. mais noo xalaatee loolu Jokal Ada Fass. waaw mais xam nga comme ñun loolu mooy suñu métier. wala bokk na suñu ay métier. dañ ciy xalaat Pape Maguette xam bi muy taxaw maa ngi koy yëg. Uh-huh. waaw waaye xam nga yow ji ne nga <laughs> muy bis bu am solo. macha allah bi légère Caatu Yaraax. Mm. boo xoolee seen parcours xool seen carrière. muy ñaari comme mbër yoo xam ne dañoo tolloo lu bari ci làmb. waaw waaw boo xoolee kii mu ngi ci 10 combats kii 9 combats mm. kii am 8 victoire kii am 8 victoire benn défaite kii am 8 euh, victoire benn défaite. moom mais ñaari grand combat ñaari combat jinne nga tëgg tuddee ko tamit benn jinne waaw mais moo tax mais foofu kenn du fa xaj. non mais noonu la ba pare ñoo di ci tamit Liss Ndiago Laurent Ndiago. ah moo kat ak bu Siteu. ci bis bi ci la ñuy def waaw ci bis bi ci la ñuy def Laurent Ndiago bu Siteu ci la ñuy def Tony Jackson 2. def PKA 2 soq 2. kon li moo tax nga ni nemm. li moo tax nga ni nemm. waaw mais waaw mais sa <laughs> <laughs> mais xam nga comme ñun. xam nga su fekkee da liggéey. Hmm. nit ñi di kaas. Hmm. naan pourquoi ñu jox Fallou ay dimanche pourquoi Fall tëgg ay dimanche. pourquoi Fall tëgg le samedi dimanche yi tëgg dimanche jox ko. Pape Maguette Fallou mooy seen promoteur bi nga xam te ne bi Covid bi ñëwee. Mm. mbas mi ñëw. Mm. promoteur yëpp yu ci ëpp boog reculé. Mm. Fallou moo fi nekk di bay waaram. teg lay trois journées teg lay quatre journées. quatre journées effectivement te bàyyiwul. bi yàlla dogalee mbas mi ñëwaat dañoo continuer taxawal suñu ay journée mais comme journée mënoo am date. waaw ah, kon gars yi ni ñu rafetal mm. ànd bi rek mm. ndax ñoom samay frère la mm, ñii samay rakk la jaru ko man làmb tey actuellement ci bu dee jeune promoteur yi benn doyen laa ci am mooy Assane Ndiaye ñi jees ñëpp dañ maa fekk si kon tey à part Assane ñi jees ñëpp maay seen doyen à part ay euh, ku mel suñu père Gasson ku mel ay liig ay président Pape Abdou Fall ñooñu à ñooñu ku fi joon ma fay actuellement ay sëñ Modou Niang suñu père. Mm, mm. ñeent promoteurs yooyu Assane Ndiaye ñoo fi jiitu. non xam naa la ba ngay ñëw keneen xam nañ xam nañ ba ñëw mais yéen loolu la yàlla dogal mais yéen ñëpp ay gaan ngeen yéen a bokk la. kon nag nañu bàyyi te man. Pape Maguette bi ma ñëwee ba tey jii. Mm. wax dëgg yàlla sama bët daa ma ko teg daf ma teg sama bët ba tey wàccu ma mooy amul benn journée bu ñëw ñu ne Fallou wàcc na wala Fallou année bi dafa wàcc chaque année ñu ngi def ay jéego yoo xam ne nii toujours dañuy gën a yegg ci kaw mm, mm, mm. loolu nag duñ ci gërëm lu dul man surtout ki nga ko man moo ma gën a neex boo xam ne man damaa jàpp ne 10 grands combats la waaw 10 grands combats ndax amul benn mbër bu ciy dee dee 5 combats mbaa 7 effectivement mbëri sélectionné yëpp nag li commencé premier ba ci dernier ba ci grand combat bi. maanaam journée affiche la. waaw journée affiche journée la boo xam te ne nii day am lu ñu ci bëgg a wane Iba hmm. ndax arène nationale ndax man damaa gëm ne. Hmm. arène nationale man mën naa koo fees ci ay espoir. Hmm. man ci yoon boobu laa nekk philosophie boobu laa am gëm-gëm boobu laa am ak vision boobu. man gëm naa ay espoir yi may tëgg. ñoom jaatu yaraax yi ñoom Bile Seer yi. ñoom Ada Fass. ñoom Jokkel ñoom Laurent Ndiago yi ñoom Bousté yi gëm naa ne man bis dina ñëw ma feesee ci arène nationale. Hmm. te gëm-gëm boobu laa am vision boobu laa ci am. Hmm. ndax damaa jàpp ne espoir yooyu. Hmm. bu ñu leen jàng bu ñu leen jàppale. luñ mënta am ci ñoom amul. luñ fuñ mënta yóbbu la am amul dëgg la te man sama gëm-gëm loolu la sama philosophie loolu la. te ñoom duñu ñu nul. non duñu match nul duñu bëree 30 minutes duñu fi ne di léew doo jëmale suba <laughs> duñu fi ne di sonal nit ñi. mais mais mais Fallou tëgg nga combat bu mel noonu combat boobu moom macha allah euh, yàlla nañ ci yóbbu jàmm ak suma suma sister. suma xarit euh, Bijou Ngoné kooku moom man ak moom gis nga li may insisté buy si ngóor man xam naa moom xam na euh, léegi Fallou lan moo tax li nga defoon defaatoo ko man loolu dama ko doon xaaraat ren nga delloowaat buum ca mboy mboy ba TFP tournant ba mhm. man Fallou falaala laa la meree bàyyee. waaw Pape Maguette xam nga bu ñu naan da wàcc moom boobu moom wàcc nga moom. <laughs> waaw boobu moom. Ah, ah, yaakaar naa boo xoolee bi jàllee li fi def. Hmm. am na ci loo sama ne doole TFP bi. kon tey du cadre ñàkk ay moyens du ñaa du cadre kii c'est-à-dire dafa am ci contexte bu ñu nekkoon muy contexte Covid. Mm. contexte Covid bi nag bu fe bu fekkee dafa ñëw. Mm. mënoo jël lu affiche toll noonu. ransale ko rangale ko tax moom foo jëm. liggéey bi day xaw a da ngay lor sax mbëri yi nga xam ne ñoo ci war a bëri. dëgg la tournoi dafa gudd. dëgg la di mbir moo xam ne dafay laaj communication. day laaj waxtaan day laaj lu bari. organisation mais Pape Maguette. Mm. incha allah ñun tournoi du génn si. yaa ngi koy waaj daal incha yaa am na looy nas de. dèjà avant Covid bi. di hmm. commencé waat nii avant Covid doon commencé waat deuxième vague bi. waaw ah. démarché woon nañ ba am man 4 lutteurs mu dese woon 4. yoo xam ne ñu ngi doon wax. troisième euh, deuxième saison. boobu yëg naa ko tournoi TP deux mille moo <laughs> <laughs> ah. doon waaj. Uh-huh. yàlla dogal na deux mille vingt deux na. Hmm. incha allahu rabbi ñu ngi waaj deux mille vingt et un deux mille euh, vingt deux deux mille vingt trois. Hmm. dañ ci xalaat benn tournoi boo xam man xam naa ne yaa day moom lu ma leer la xam naa ne yaa ngi bi ñuy def tournoi fi ñoom doomu dàng tolloon hmm. fi ñoom soq tolloon hmm. fi booy yooyu tolloon bi toll foofu catégorie boobu ñu leen waxtaan ak ñoom fexe dina carton te doo naa tamit tournoi boo xam ne day dajale ñoom Liss Ndiago Euh, je sais benn catégorie boo xam ne ñoom. waaw boo xoolee tey boo xoolee tey bu ñu nee Ada Fass génnul ci tournoi boobu. dafa mbër dafa mbër génnul ci tournoi boobu. c'est-à-dire mooy kun ci seeti. Hmm. nga bëgg. Hmm. incha allahu rabbi suñu tëjee. Hmm. ci kàttanu yàlla déwén bëgg nañoo def. deuxième saison tournoi TFP 2022 2023 2023 incha allah man xam naa ne yaa ngi ci lool te boo ko defee dina ma neex trop léegi nag euh, la ñuy la ñuy wax rek mooy euh, wax nga ci affiche yooyu noonu ñu ngi koy waat incha allah le 20 ak le 27. une semaine après Iba Mar ñëw arène nationale ñu feesal ko insha allahu rabbi boobu moom naa ci bay sama waar ndax biiju ngoone bi waaw léegi boo boo ñëwee Iba Mar ñu def drapeau Samba Ndour Samba Ndour Samba Ndour di jàndal Mara nekk Touba mm-hmm. moom léppay baax waaw di nekk euh, Mara boobu te nii day jàppale tey képp kuy artiste képp kuy rappeur mm-hmm. mbër bàyyiwul kenn di jàppale mm-hmm. mu mel noonu tamit du suñu frère du suñu xarit ñu koy sargal ci le 20 bi insha allah Iba Mar baax a baax a baax. la la vingt bi tamit ñu def ci jeune xale la vingt bi nag ñu def ci lu particulier tamit. Mm. ndax dañoo jël. Mm. dañoo jël vingt mbëru bawal. Mm. boole ko ak vingt mbëru yoo xam ne Dakar lay nekk dëkk ci banlieue bi. ndax nag ku ne xam ne ñun doomu Bawol lañ. waaw Bawol lay dëkk il faut ñuy promouvoir. ah da ngay promouvoir bi yow fa nga nga leen di jege. nii mm. mm. leen la fa incha allah ren sax Iba dafa xew ren moom. ñoo ñoo non Bawol day day continuer sax dañuy continuer xew non xew moom dañuy continuer sax. Bawol doole mais Bawol mooy lamb ba maget. maa ngi ñoom ñëpp <laughs> sama dëkk la nag dem naa fa. mais ba maget Bawol mooy lamb. Bawol mooy lamb am. Mm-hmm. ah baax na ba deux mille vingt deux mille vingt deux. day gën a métti gars yi rek ba waa Pikine jógaat day gën a métti rek ah, ba waa Guédiawaye jógaat. non day gën a métti ah, ñu ñu jëm ci benn euh, combat boo xam ne bëgg naa tamit nga sànni ci sa kàddu tu es un jeune nekk ci làmb ji di ci investir investir Modou Lo Balla Gaye. Modou Lo Ama astafurla Modou Lo Ama Baldé. Mm-hmm. Fallou coow li bëri na. kee presque mi ngi ci fin carrière kii mi ngi nekk ci yoonu làmbam dem di wut titre roi des arènes nekk Pikine kee nekk Parcelles. ñu war a def face à face mu war a am si jàmm ak salaam ñu bëri ko parce que àdduna moo soxla combat bu waxuma la Sénégal àdduna mu ne àdduna mooy Sénégal ak ñu nekk bitim réew dañu ko bëgg a gis Ama Baldé bëgg combat bi Modou Lo bëgg ko mais face à face mënut a am te keroog damay naan mention spéciale mention spéciale et félicitations encore guy gi rëg-rëg face à face bu neex la ñu def. def face à face amul coow ñoom ñaar ku ne tooñ nga sa morom ku ne wax nga li nga war a wax ñu jóg dem seen yoon sans problème mais Modou Lo Ama Baldé ñu bëgg indi comme guerre mondiale looy wax ci loolu. xam nga Pape Maguette Modou Lo Ama Baldé yaakaar naa combat la dayoo bi nag macha allah foo ko takk nat foo ko natt weesu na foofu mhm. mais combat la comme combat yëpp su promoteur bëggee face à face am rek dina am. su bëggee mu am face à face moom bëgg na de ah. dama ne dama ne su bëggee mu am. te du am waaw ah, su bëggee ah, mu am non xam nga xeex ak coow daa fekk bëgguñu mu am rek mais man sama gëm-gëm hmm. mooy heure su promoteur bëggee face à face bi am dina am ah, c'est-à-dire nag ñun ay promoteur lañ bu ñu naxante et puis bu ñu nax askan wi hmm. lamb yi face à face yi am ni ñuy sànnante xeer ñu ci lor ay nit amul benn sens promoteur bi na jël ay matuwaayam bëggee face à face bi am face à face bi am hmm. fii lamb bu am na fi du combat boo xam te nii dem wutam ci réew mi ñaari mbër lañ rek Modou Lo ak Ama Baldé rek ay mbër lañ comme yéen mbër yi te fii combat bu ne am na fi quand même seen camp ñu ko teg xaw non teguñu ko fenn heure bëggee promoteur heure bëggee promoteur bëggee mu am rek mu am fii ba déwén du ndax heure su ma ko ko ah, organisé ma yàq ndax norme yi ma koy organisé la problème boobu après mujj gi def nañ face à face dama ne norme yi ma koy bëggee su ma bëggee mu am day am c'est-à-dire bu ñu fi ne di sonal suñ bopp di guddal ay affaire heure bu ma la bëggee face a face bi am man sama gëm-gëm mooy day am. mais Luc bëgg na ko de démb de wax na ne bëgg na ko le 5. waaw non xam nga li xam nga xam nga moom suñu suñu kilifa la ndax suñu moo ñu mag fuuf ëpp ñu expérience njëkkuñu ci làmbon. Euh, yaakaar na bu bëggoon face à face bi war am ay am man damaa gëm ne dina am. ndax nag man déglu woon naa ñoom ñu ne dañuy jëli Modou këram jëli Ama Baldé këram waaw Modou Lo bu ñu ko jëlee këram pour indi ko arène nationale daa ci ci police sénégalais mm-hmm. ci gendarmerie Sénégal Ama Baldé bu ñu bëggee mu ñëw face à face du dara kon damaa jàpp ne rek ñoom ñoo bëggul mu am te bu ñu bëggee moom am na am ok euh, mais euh, lan ngay wax ci waa Pikine ak waa Parcelles xam nga waa Pikine ak waa Parcelles coolee fi rek waaye defaguñ lu tax ñu naan liñ def gisagoo ñuy raayante gisagoo ñuy defante yu ñaaw yi. ah non attends non attends xam nga tey ay booy taxaw fële. Ah, oto ay convoi di ñëw ñuy sànni xeer. waaw loolu su fekkee jël nañu ñu war a jël du am ndax ñi ko doon sànni mënuñu cent personnes mënuñu cinquante personnes. waaw de loolu moom cest à moo tax ma ne la suñu bëggee moom rek day am. c'est-à-dire bu ñu naxante. man naa am arène national mën naa naa am Dakar arena mën naa am arena fu ne mën na ci Sénégal gi en tout cas daal képp koy promoteur bi koy dëgg na jël disposition yi war a jël hmm. su jëlee disposition yi rek pour lamb ji am du dara man moom fi may jeexale mooy que ne si léegi pay per view mhm. Fallou yow père garçon waaw ak kan Pape Abdou Fall waaw <laughs> sama nijaay waaw ak kan ak Beuz waaw nee nañu yéen a yàq lamb ji ak pay view mhm. li ñu ko laay def na déclaration li mu wax mooy nee na bañu ko mhm. mais engouement bi doon am nga ñëw buntu stade kaar yi taxaw ñii naan Diourbel Guédiawaye Parcelles Fatick engouement bu te làmb dina am Fallou Ndiaye ñu dëgg làmb ba làmb jeex gars yi naa est ce que làmb daa amoon Balla Gaye day bëree suba wala xam nga li am solo mooy mais lan nga ci xalaat xam nga lu ma ci jàngat ban laa ci am waaw mooy nit ki bëgg a jël ay waxam dóor ko ci kaw nii wala jël ñii dóor ci kaw nii waaw man maa la tudd. waaw man maa tudd Père man maa tudd Beuz sama <laughs> xarit. waaw maa tudd Pape du Fall sama nijaay. xam nga lan xam nga lan moo tax man Beuz Pro yaakaar naa bokk naa ci ñi ko gën a jege ci làmbo du ne maa ko gën a jege mais bokk naa ci ñi ko gën a jege man bokk naa ñi koy conseillé ci côté pay per ndax yaakaar naa Beuz Pro bi muy nekk extérieur la déggante ba ni ñëw Sénégal bi mu ñëwee am procès pay bi dañ ci doon waxtaan yaakaar naa ci ñi ko njëkk a ñeme ci laa bokk ñi ko njëkk a song ci laa bokk gëm ko loolu nag te tey laa ko gën a gëm mais xam nga man mënumaa jàpp di lekk ci ndab bay di ci xëpp suuf loolu duñ xam lu mu doon hmm. cest à xamuñu sa sabotage la hmm. xamuñu lan la hmm. mënumaa jàpp ndab li buñ ko tegee ma lekk ba suur su ma paree wéex ko mu dem loolu baaxul Buzz Pro jeune la di ku am ambition nag di am ku am vision ak gëm-gëm fekk am niveau bu làmb nekk mu jël niveau boobu yóbbu ko ci beneen level loo ko mën a waxal mooy ñi liggéey ak ñoom ñëpp mm-hmm. xam nga ne ñu bëgg xaalis lañ mm-hmm. xam nga ñu gëm seen bopp la xam nga ne ñoo ne ñoo liggéey ay millions bëgg si fi ñu si te mosoo dee kenn liggéey ak moom ci ñoom ba pare ne sama xaalis mm-hmm. wala gisuma sama bopp ci moom du nu nga wax sax leen jaayal far des saa te man li ma wóor mooy ay millions la ñuy jaay ay dizaine de millions lañ leen di jox ku ci ne tey nag mënumaa jàppoo d'accord nit ki ma liggéey ak moom ci pépér bi mu yëkkati ay dizaine de millions ay vingtaine de jox ma ko hmm. ma xëy ne loolu baaxul moo yàq làmb hmm. Pape Maguette pépér moo defar làmb moo defar làmb képp ku naan képp képp non loolu mënut a nekk képp ku ah, naan ah, non ah, attends Pape Maguette loolu mënut a nekk Pape Maguette baal ma pare rek képp ku naan pépér bi mooy non non doo ma doon non non non duñ ma sa juboo képp ku naan pépér moo yàq làmb sabotage moo tax a jóg te dañoo jàpp ne saboteur nga man loolu laa gëm. mais pay li tax ma ne yàqu làmb. mais yéen la arrangé waaw mais mais pas màgg da nga may laaj tax yàqu làmb rek ñoo continuer. li tax yàqu làmb mooy. làmb fa daan nekk mu nga fa. tey ku suñu père Gaston. Hmm. doone làmb yi muy def communiqué ci ci communiqué wul. Hmm. askan wi li ñu doon gis avant pay-per-view la ñuy gis. Hmm. ñu ngi gis face to am solo. ñu ngi gis ay signature contrat yu neex. banaana aussi mu ngi daw télé bi nu doon dawee PPV lan la andi sponsor yi mu mu ngi koy am PPV lan la andi tey dañ ne la tey muy Sénégal muy diaspora bi nga ñëw jënd code mais jënd code boobu sénégalais bi yow Pape Maguette exemple exemple ci yow comme ci man nga jël exemple maak ñoom yow nga toog sa kër teg sa baraada sab jeeg lakkale sa ginaar yu baax nga añ ba suur hmm. jaaxaan def naa ko moom waaw dëgguma jaaxaan naan sappel ma télé bi ak sappel ma télé bi fekk promoteur baa ngay dee ci ay ba su paree yéen sénégalais wala ñeen sénégalais ñoo naan dafa sob amu ko mënu ko hmm. léegi ñu am benn stratégie boo xam ne mu ngi ñuy jàppale benn moyen boo xam ne mu ngi jàppale muy pay per ñëw ñu ne tey sénégalais bi toogal sa kër 2000 francs wala 5000 francs wala 3000 francs jëndal kot nga seetaan jàppale sa moroomu sénégalais bi investir ci réew mi hmm. nga ne loolu da yàq làmb hmm. mais loolu koy wax da ngay saboté parce que boo waxee loolu ñoom fi ñu ko waxee mooy na mu doon dundalee réew mi actuellement nii waa non nii la gën a bëri nit non mais quand même mais yéen yéen man dama yaakaar mais xam nga tey moo doon waaw mais da ngeen rey man ngaa nekk stade lieu de rencontre waaw déglu man ngaa nekk waaw déglu nekk promoteur ah, waaw man ngaa nekk que yéen saa vous arrangez moo tax nekk promoteur da doo seetaan mën nga nekk promoteur te doo seen làmb moo tax yenn communication yi di am làmb da raw wala mu rëcc la tuuti si si te doo seen xam nga man combat yi ma yëpp mooy gën a fees yi ma deful pay per ah la preuve si te paasaw dafa fees pay-per-view la loolu dëgg la euh, Balla Gaye Bombardier bii cinq mille francs la woon dafa fees te pay woon moom dañoo yokk buum ca mbay waaw dama ne te pay-per-view la woon kon tey kon tey jàpp naa ne mm, mm. képp ku taxaw naan pay per mooy yàq làmb mm. non damaa yaakaar ne li nit ñiy def hmm. da nga gis sa bët di ci am salusi boo ciy def tuuti rek hmm. man loolu laa gëm mais wax dëgg yàlla Gaston andi fi pay-per-view man Père Gaston Pape Abdou Fall ah, kenn ak kenn ñëpp laa yemale dama naan na parce que koy def te dañ koy continuer mais tey ngay def pay-per-view yaa ngi xalaat ci nekk Tambacounda est-ce que yaa ngi xalaat ci nekk ginnaaw Fatick est-ce que yaa ngi xalaat nekk feneen ñun dañoo ñëw ci làmb non non Pape Maguette dañoo ñëw ci làmb pour liggéey ñun ñëwuñu non attends Pape Maguette man ñëwuma ci làmb pour kane Tamba kane Dakar kane Kolda ah, non attends man damaa ñëw non attends man damaa ñëw investir non man damaa ñëw investir sama xaalis pour am ay rentabilité yoo xam ne bu ëllëgee dinaa ma tëggaat mbër mi mais nag du ma toog ne ka ne Fatick mbaa ka ne moom laa war a seedaanal pour tëgg làmb du ma tëggaat mais loolu kay kooku wuru ko sax d'accord hmm. ndax tey jii sponsor amul ay moyens la ñuy trouver yoo xam te nii moyens yooyu mooy tax lamb ji nit ñi di ko mën a am di ko mën a dund effectivement moyens yooyu noonu léegi site internet ñu ngi fi télévision yi ngi fi bu lamb jeexee dañuy teg dañuy répandre lamb ji rapidement léegi moyens solution yooyu est que tey bu ñu wàññee tuuti PPV ñëpp a am accès di jaay ko waa Europe waa bitim réew Pape Maguette léegi sponsoring ñu jéem a xool naka lañ indiwaatee ci lamb ji Pape Maguette loolu du solution lamb ji amul sponsor amul ñuy jiime pour mu indi mhm. làmb ji ku ne xam na ne sponsor amu fi comme sponsor amu fi nag li nga mën a def mooy tëgg sa làmb xool na ngay def pour génn ci forcé woo kenn pour mu dem jëndi force pour mu dem jëndi pay-per-view xam nga ne yow kenn mënu la exiger nga dem jëndi pay-per-view yaay xool lamb ji Fallou Ndiaye tëgg jaral na ma waaw non dama ne yaay xool lamb ji waaw non yaay xool lamb ji Fallou Ndiaye jënd tëgg jaral na ma sama mbërë ciy bëre hmm. xaaral ma jënd code 1000 francs wala 2000 pour seetaan ko diaspora bi laa nekk xaaral ma jënd 4000 wala 5000 pour seeraan ko. wala ma ne moo ko jënd ko. def xaaral ma jàppale ko jënd ko ñun foofu la ñuy xaar sénégalais yi. mais nag bu ñu gisee ay acteurs di saboté loolu baaxut. kon sabotage ngeen ko non sabotage la am na yoo xam ne waxu sabotage la. mais pour dundal ak réew. am na yoo xam ne nii pour sabotage la gis nga. xam nga gis nga Pape Maguette. waa Tamba. Pape Maguette gis nga gis nga gis nga ñu feen di pay per dañoo jàng at. am ci expérience. Hmm. nekk équipe bu dëgër. Hmm. di ci liggéey. liggéey ci ba tollu fii seen njaboot war a yaakaar ci loolu ñuy liggéey kon tey du ñun ñoo leen war a xajamal li ñuy def même su fekkee defuñu ko dañoo war a toog jàpp suñu jàmbur di leen seetaan comme intéressé wuñu mais man daa d'accord tey nga xas PPV bi tey ne baaxul moo yàq làmb bu subaa nga signé waat ak ki nga xam ne moom nga xasoon waaw non non attends non xam nga moo yàq la non moo yàq làmb moo yàq làmb mais waa waa mais combat Reug Reug ak Gouye Gui waa Euh, ñu Maawo Cissé neen dañ koy teg en direct télé amul pay per view mais loolu loolu Maawo Cissé moom TFM lay liggéey télévision la nekk ñoom ñoo xam ne dañoo seen bopp jinax <laughs> tey nit ki nga xam ni man gis nga Pape Maguette. Mm. man du ma saboote li kenn di def. Mm. man lu waay def ci làmb tam ma gis na yaa ngi ciy gis sa bopp mm. noo du ma saboote muy promoteur bi muy menacé bi muy bër bi man toujours rek philosophie bi mooy li ngay def yow la engagé man li may def man la engagé. soo ma posé tan question ci paper bi sax du ma ci wax mais ba ma laajee dama naa la loolu affaire u sabotage la ne paper bi day yàq làmb affaire u la hmm. làmb dafa toll foo xamante ne nii kenn wootu koo seetaan gratuite man gëm-gëm boobu laa am hmm. muy Sénégal muy bitim réew kenn wootu koo seetaan làmb gratuite hmm. ndax sponsor amul te promoteur yaa ngi bëgg a dee ñu ne dañuy wut ay pexe yoo xam ne ni mooy tax ñu resté fi ñu noog duñ fi jóg tey jii bu fekkee amuñuy pexe mm. non man damay bàyyi keneen day bàyyi keneen day bàyyi bu baax coow dootu am sax ba kenn di dégg la am te yéen ñëpp ay euh, ay njiitu entreprise ngeen parce que yow ñu ngi la fekk nii sa entreprise bu dul làmb yaa ngi sa bureau fi ñu la fekk fii ngay liggéey loolu tamit c'est très important pour ñu wax ko bëri ay promoteurs yoo xam ni seen entreprise lañ nekk xaalis boobu la ñuy jël dugalaat ko ci làmb ji kon boog rentabilité bu demee ba am problème ci côté sponsoring kon pay per view boobu noonu kon jar na analyser waat. jar na jar na bàyyi xel waat bu fekkee ne beneen promoteur trouvé na ne mënul def pay per view da ngay teg si télé bi gratuitement comme ni ko waxee moo xam ni muy tojee. bopp am na droit am na lu ko permettre c'est-à-dire mooy pas màgget man fàllu même bu dul pay view hmm. man maa dul def lamb direct sans sponsor. sans am ay partenaires yu ma gunge. ban importance laa dem di jox télé bi ay frais de production ay budget de pour ñuy ñëw di produire sa làmb di ko wane noonu gratuitement yow. mais c'est-à-dire il faut promoteur yi ubbi seen xel yi. di xalaat il promoteur yi ci moom bu ñu bëggee rester ci làmb. Mm. ubbi seen ay xel di xalaat tey yaa ngi gis promoteur yi del xool chaque année. Mm. nga gis 5 promoteur anne bi yor 5 yi 3 bàyyi wala 2 bàyyi yeneen ñëwaat keneen bàyyi yeneen ñëwaat lan la dañoo amul expérience wu nan la ñuy organiser làmb. Mm. làmb du bul wut lu neex nit ñi wutal li nga xam ne nii mooy tax nga mooy li nga xam ne boo ko defee bu ëllëgee di nga mën a tëggaat làmb mais boo toppee bëgg-bëggu nit ñi ne manque motivation moo voilà waaw boo boo toppee bëgg-bëggu nit ñi ci leen neex nga ciy dox di nga dem ba dugg foo xam ne du sa domaine man nag toujours li may def mooy damay xool li tolloo sama poos méngoog ñi may àndal ma def ko necca su ko defee du ma ci benn jafe-jafe ndax làmb bu may organiser jàpp naa bute bi ne sama poos wala mu nekk ci poos ñaar ñi may sës ci man may ànd ak ñoom te ñoo xam ne samay xarit lañ mën nañoo seqalante loo xam te ne nii amul benn problème mu soxla ma jox leen ma soxla jox leen. ndax man maa daa xaleb ci làmb ji. léegi Fallou lan ngay waaj ci ñaari journée 20 bi ak le 27 da def benn méga face wala boog da ngay ber 27 bi moom da koy ber moom. non même non dañ leen di boole benn face à face si Iba eh, naa sa xel yi ma ne la ba xam ne waaj bi. <laughs> waaw après dama dama dem sax ba nopp la. <laughs> non non bee moom ber boole ñaar yëpp. non ndax spectacle lañ bëgg a def. indi vraiment ay artistes ñu ñëw vraiment créer ay ndaanaan yu bari ñu ñëw vraiment ñu xool nan la ñuy créer yenn innovation am ne ni doon du bokk ak face à yi nga xam moo daan am ndax tey il faut tamit ñu ñuy yokk tuuti rek chaque jour lamb bu amee chaque lamb ñu jima yokk leneen chaque lamb ñu yokk quelque innovation di innover tuuti di innover tuuti ba lamb mën a tem tey ba mën a xam naa entre 10 incha allah 11 incha allah rabbi entre le 10 le 11 Issa Diop Yomar Diop ñu ngi waajal fes open press yi doo leen jéem a xool banam anam ngeen koy defaatee. xam nga open press du du promoteur moo koy organisé. mbër bi moo koy mu neex doo def open press mbër bu mu neex tey promoteur bi amul hmm. fenn fu ma naan mbër bi da def open press obligatoire. Hmm. mbër bi moom mooy neex mu def open press woo pressam moom mooy woo boppam pressam pour ñu ñëw couvrir ko. des nag mbër bi mën naa bañ a relation ak presse bi woo promoteur bi ne ah presse bi jàppale ma mbër diw kat dafa bëgg def bay journaliste yi ni ñu ko war a liggéeyee duñ ko liggéeyee mhm. beneen côté bi tamit mu am benn manque de sécurité boo xam ne open presse boo xam mbër bi 18 heures lay ñëw wala 19 mais su euh, tey presse hmm. wax leen ne su fekkee da ngeen organiser open presse norme yi yëg norme yi su amul du ñëw su ngeen nee fekk fa norme yooyu ngeen ñibbi ndax tamit da ngeen liggéey liggéey bi ngeen liggéey waru leen ci am yenn gàllankoor yu metti yi hmm. franchement jaru ko sax pour man quand même hmm. sa sa dernier mot mais sama dernier moom mooy sant sénégalais yëpp sant axlu làmb yëpp di am mbégte tamit ci dalal bi nga ñu dalal di nuyu baax équipe bu Sénégal bi yëpp di nuyu ñi nga àndal di la nuyu baax baax màgget di am mbégte di waaj la 20 incha allah Iba Mar Diop di waaj le 27 incha allah rabbi arène nationale ñaari journée yoo xam ne journée yu am solo la waaw incha allah loolu Ndiaye production rek ko sañ. <laughs> <laughs> jaajëf ñu ngi koy jaajëfal. merci kontaan nañu jërëjëf jaajëfal ak lu làmb gi yëpp di jaajëfal encore ñu ngi lay jaajëfal góor gi màgg góor gi màgget la woon góor gi ak màgget ñaar alaaji Maalik moo nekkoon ne sëñ Fàllu moom la ñu dalaloon tey ñu ngi leen jox rendez beneen daje incha allah ci géewu Sénégal